gars yi nouvelle ci foofee ca Real de Madrid nouvelle bu neex jëm ci Bellingham ak moom ak entourage am kookee di Ansu Fati dinañ ci ñëw baax sax ñoom seen Nicolas Jackson gañewaat na tey seen beneen mat match foofee ca Carabao Cup salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant xibaar mercato tey 30 août ci wàllu tàggat yaram waaye gars yi balaa ñoo dugg ci xibaar gi duñ def lu dul wax leen s'il vous plaît ñi nga xam ne abonné guñ suñu chaîne YouTube ñu abonné activer cloche di seetaan vidéo yi ba mu jeex surtout gars yi ngeen di liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a jàppale ci liggéey bi nga xam ne nun koy def euh, ci YouTube bi di leen jox xibaar matin midi soir mu ngi noonee jëm ci xibaar mercato yi balaa ñoo ñëw ci match bi nga xam ne doxoon na diggante Nicolas Jackson Chelsea ak kooke di Wimbledon di leen leeral que ni euh, jamono ji Chelsea moomee mu ngi ci yoonu conclure accord am ak kooke di Palmer accord bi sax am na ba pare conclure nañ lépp mu suñu fa kay moo ci des ñu officialiser ko mu sol mooy Chelsea ñu ngi xaar mbir mi nan lay demee naka la lépp lu ci mënti am daal dinañ leen ko jox ci njekk amee kon noonu waaye gars yi di leen leeral que ni le boobee marocain bi ñu naan Amrabat jamono ji euh, defut entraînement ak Fiorentina jamono yi yëpp waaye Manchester United mu ngi préparé. préparé offre bu duuf pour war koo mën a jël foqati ko indi ko ci këlëbam boobee ngeen xamee ko noonu lépp lu ci mën am daal dinañ leen ko jox ci njekk ak teranga ki nga xam ne jot naa dem ci njekk ak teranga mooy la gane naan Ernest Noamah moom nag rejoindre na club boobee di Olympique Lyon lépp mat na mu ngi noonee waaye Saudi Pro League jamono ji club bii di Al Ettifaq bu ñoom Steven Gerrard ak Henderson seen ancien coéquipier boobee di Wijnaldum moom lañ bëgg a foqati actuellement ñu ngi déggoo Paris Saint-Germain pour jéem a xool mu war a def ba ñëw foofee ca Al Ettifaq ki nga xam ne tamit ñëw na ba pare bañ officialiser ko muy kan Benjamin Pavard jóge na foofee ca Bayern Munich comme nam ko doon defee bras de nangu loon entraîné ba jot a feebar dem na rejoindre club boobee di Inter de Milan ca Serie A italien lépp mat na 30 millions de lañ ko jëndee plus 2 millions d'euros bonus ngeen xamee ko noonu pour le français l'autre français bi nga xam ne moo nar a jóge ci club dem ci club waaye ca France googee lay toog muy kan Barcola moom nag dafa nar a jóge foofee ca Olympique Lyonnais dem rejoindre club boobee di Paris Saint-Germain bu ñoom Ousmane Dembélé ak kookee di Kylian Mbappé mu ngi noonu déggoon nañ ci quarante cinq millions d'euros plus cinq millions d'euros bonus mbir mi daal suba daal lan xalaat que ni lépp si la nar a mat pour que le français jeune français boobee naan ko la am talent loole mu ngi noonu gars yi ba tey dañuy des si xibaar mercato bi wax ci kan le joueur boobee ñu naan ko Manchester City club booy bi booy bi naan Jamal Baptiste jamono ji ci lañ teg tànk ngir war koo mën a jënd daanaka xam naa ne suba daal ci la lépp gën a leeree pour baptisme moomee waaye dañ ko nar a yóbbu ci académie city académie bi lépp ci groupe city city groupe bi la euh, mu ngi noonee lépp lu ci mënta am daal lañ ko jox ci njekk ak teranga ngeen xamee ko noonu kookee di Ansu Fati di leen leeral que ni le club boobee euh, ñu naan ko. Euh, le club boobee ñu naan ko euh, Brighton actuellement après ba Tottenham jéem cee dugg finalement xaw a reculer xamuñu ne dina ñëwaat ou pas nag Tottenham ki mu gën a jox priorité mooy Johnson moom la gën a bëgg actuellement waaye kookee di euh, Brighton mu ngi waajal offre pour jënd kookee di. Euh, on se fàttali te mbir yi avancé na bu baax a baax loolu daal la leen ci mën a wax pour bu fa demee ah, bu leen bett foofee ca Brighton waaye it yamaatuñ foofu gars yi ñu dugg ci match bi doxoon diggante Nicolas Jackson sunu international sénégalais Chelsea ak kooku ah, du Nicolas Jackson football na waaye deuxième mi la dugg ah, Chelsea ci premier mi bi dañ leen mënoon 1 à 0 ba temps di waaj jeex premier mi bi ñu égaliser sur penalty waaye Nicolas Jackson dañoo dugg. dugg rek carrément 46e minute ñu dugal ko mu def différence de full ak fayda accélération appel yeeg wane loo xam ne daal bokk na ci li changé match bi ci noonee nag kookee di Enzo Fernandez l'argentin moom it ñëw indi ay ay affaire am ba changé match bi gagné euh, dugal euh, deuxième bi bi nga moo permettre Chelsea mu gagné par la marque deux deux buts à un qualifié na ci prochain euh, phase yi nga xam ne ci la club cup bi di wëyal bu baax a baax ñuy xaar mbir mi na lay demee naka la mu ngi noonee gars yi tëjee ko kookee di Jude Bellingham nga xam ne moo nekk foofee leen di annoncé mooy que ci mois d'août bi nga xam ne ci lañ génn nii te ci lañ nekk ba ciy waaj génn moom lañ nommé meilleur joueur mu doon loo xam ne gëmuma mu bett kenn ma leen xaar ci commentaire yi ba xam d'accord ngeen ne ci mois d'août a dugal ak ci jeu bi ni mu agressifé ni muy euh, déterminé ni mu déterminé woo ba pare yamaatuñ foofu il est passionné quoi moom daal bëgg-bëgg lay wane ci biir terrain bi kon nag lépp lu ko jox rek man jàpp naa ni mérité na ko mu ngi noonee gars yi loolu moo nekkoon xibaar tey 30 août ci wàllu tàggat yaram képp koo xam ne nag abonné goo sunu chaîne YouTube bii du def lu wax la nga abonné activé cloche di seetaan vidéo yi ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous. يعملون الصالحات

وضربنا على ذلك alxuraan tey jii tamit alxuraan ndax boo koy alxuraan moom seen yaay nañu kontaan vraiment loolu nag leen bu baax baax si yaatu ko macha allah. daa lay yàlla def ay sinuwaar. def leen ay bëccëg